bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam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 mi ñu may xéewalu nelaw yonent bi jàngale ci xéewal boobu bu ko jullit bi jëfandikoo dafa am la mu war a dafa am la mu war a wax moo ne baat bi yonent bi jàngale ne jullit bi bu jëfandikoo xéewal ba ko yàlla xéewalal te mu doon xéewalu nelaw baat ya mu war a wax daf di baat yu yomba wax baat yu neex a wax jafewuñu guddul moo ne nga delloo buur yàlla cant bi nga xamante ne moom dong moo ko yeyoo ndax moo doon buur bala yënkeewal loolu nga nekk waaw buur bala yënkeewal loolu nga nekke buur boobu kat a ah, moo yeeyoo nga delloo ko njukkal walla nga delloo ko la nga xamante ne mooy cant bam la xéewalal noonu ba tax na am na ñoo xamante ne réeree mbir ba ñu réeree mbir la yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa ne jullit ba yàlla xéewalal mu jëfandikoo nelaw bu ci noppee dafa am la mu war a wax mu daldi ko sante buur bi subhaanahu wa taala moo ne baat boobu kat mooy adkaaru istiqaaza min an nawm mooy baat bu jullit bi war a tudd gannaaw bu mu jëfandikoo la xamante ne mooy nelaw mooy nelaw jullit bi jëfandikoo na ko ba pare dañ ne dafa war a sant buur bi tabaraka wa taala comme na ko yonentu bi jàngale alayhi afdalu salaatu wa azka taslima moo ne yonent bi sallallahu alayhi daf ne adkaaru istiqaaza min an nawm yi ay baat la jullit bi war koo tudd gannaaw bu mu jëfandikoo xéewalu yàlla ba ñuy duppee nawm te mooy nelaw moo ne dafa war a wax ne alhamdulillahi alladi mboolem xeetu cant yu kawe ñeel nañu yàlla ndax mooy buur bi nga xamante ni ne axyaana moomu dundal baadama amaatana gannaaw bu mu dogalee ci sama jëmm ji dee bu ndaw te muy nelaw waaye nag wa ilayhi nushur ci moom buur bi tabaraka wa taala dellu bu ñu paree ci dund bi saa yu ñu jeexalee dund bi du dellu ci ma sàmba du ñu dellu ci ma demba du dellu ci paate wala duñu dellu ci kenn moo tax wolof ñaareel day faral di wax bu doomu aadama bi faatoo dañ naan dinañ ko jébbal boromam suñu sëriñu daara di siidi yaxya njaay xafizahullahu waraahu daanoon na wax ne xamut ban kàddu moo gën a déggu ci baatu wolof kàddu bi ni mel ni diw kat dinañ ko jébbal boromam nee kàddu boobu noonu wolof di wax de ah nee kàddu boobu de kàddu bu déggu la waaw dinañ ko jébbal boromam nee foofu moom wolof da wax na kàddu bu déggu ci wax yamuy wax walla ci baat yamuy yëkkati mu di ko jëmale ci askan diw dinañ ko jébbal boromam moo tax nga dégg ci njeexantalu ñaan bi wa ilayhi nushur mbokk yi xam ngeen bi léegi ñu ngi ànd ak yéen ci nasiha laaye biir ba ñuy laaye biir jëmmale ko ci ña war a teewal askan wi ci pencum ndaw réew mi di assemblée nationale ñañu wala laaye biir mooy ña wara a teewel askan bi ci béré boobee gannaaw bu leen askan bi joxe seen xob ñu woteel leen ci kuréel ba ñu bokk wala ci yoon ba ñu tink seen bopp ne ñoom fawfu la ñu bokk ñu nit ñu di leen yóbbal gannaaw buñ leen joxe suñu kart kenn ku nekk nga woteel kalaneex ka nga am yaakaar ne bu fa demee dina taxawee taxawaayu askan bi ci béréb boobee waaye bi léegi bokk na ci lañ leen war a jox comme yóbbal comme sérité moo ne ndegem ñun ñoo bokk jox leen suñu baat koo jox baatam nag koo jox sa baat walla ku taataan sa baat ku daganal sa baat ben ko jox sa baat nga jox ko sa carte bul toog ne yas ne yasar la war mooy nang ko ñaax waaw ko ñaax ne ko nii laa bëgg nga doxalee ko nii laa bëgg nga taxawee ko njàng bi nii laa bëgg nga taxawee ko emploi de jeune bi nii laa bëgg nga taxawee xëyu ndaw yi nii laa bëgg nga taxawee nga aar lépp luy nasaxal xelu jeunesse bi nii laa bëgg nga taxawee ko lépp luy sàmm xelu jeunesse bi la kay nasaxal bu ko dugg bu mu dugg ci askan sàmmal ma loolu ba mu bañ a dugg ci askan lay tax genes bi yonjox bu dee la ñuy jëfandikoo la sàmmal ma ko ba ci askan bu dee lu ñuy naan la sàmmal ma ko ba mu bañ a dugg ci askan bi bu dee luy nasaxal xelu xale yu góor yi la sàmmal ma ko ba mu bañ a dugg ci askan bi yow mi may teewal ci péncum ndaw réew bu dee luy yàq jikko xale yu jigéen yi la sàmmal ma ko ba mu bañ a dugg ci askan bi ndax looloo tax ma jox la sama baat ndax looloo tax ma voteel la kon am na ñeneen ñi nga xamante ne amaana ñooñu la yàlla nattoo ñoomit ñuy jukki ci géej gu mag jikko yoo xamante ni bu ñu leen ko joxee comme sérité ngeen yóbbul ñu ko ci béréb boobee ñu ne leen luy nasaxal xelu genes bi bu ngeen ko gisee na ngeen ñu ko faagaagal mu bañ a yegsi ci askan la tax xale jigéen yi di taxawaalu walla ñu nekk ci anam bi nga xamante ni du lañu baaxoo di gis suñu réew mi bi ngeen ko gisee na ñu ko faagaagal mu bañ a yegsi ci askan waaye lépp loo xamante ni dina njariñ jeunesse bi loolu lañu bëgg ngeen bàyyi mu jàll mu ñëw te bu ñëwee tamit na ngeen ko na ñu ko jox comme ni leen joxee seen suñu carte mbokk yi imagine leen bésu vote sango be set sol sa yére bu rafet daagu ndànk fay sa paas dugg sa taksi wala jël sa oto dawal ndànk dem ba bureau bi nga wara a nga dem votel ki nga defee ne moo wara taxawee soxla bi nga ne bu ko taxawee ci péncum ndaw réew mi soxla suusu même bu fajul cent pour cent waaye lu ci bëri dina mën a faju mbokk yi kooku bu demee ci bërëb boobu amul dara lu muy bàyyi muy jàll lu dut ay bukki yoo xamante ni bu ñu ñëwee dañ lay lor yow mi ko voteel ay gaynde yoo xamante ni bu ñu ñëwee dañ lay pàdd ay loo xamante ne bu ñu ñëwee kenn du xam fa mu jóge ak bu duggsee kenn du xam la tax ñu bàyyi ko bi mu jàll est-ce que kii delloon na askan bi njukkal est-ce que la alquran di wax hal jazaau li ihsaan est député boobu taxawee na taxawaay bi est aaya ba nekk ca suratu yusuf wala nudiu ajra al muhsinin est-ce que kii taxawaayu way rafetal ñi la taxaw ci assemblée bi tontu bi benn la déedéet kon ka fay dem noo fay nekke loolu da ko war a matale ndax ki la votel dafa am sacrifice bu mag bu mu def ngir ñëw votel kon sàmmal ko sàmmal ko coono boobu mu daj bekkeroog mu di la votel bàyyi ko xel sóoraale ko du xar du bëy du nag du mbaam du fas nit la ni yow imaginel bu fekkente ne yaa ngi bàyyi lu baax muy dugg ci ci askan mu di jot ku ni moom moom it mu di jot xataa ku la votelul sax moom mu di si jot wallahi bu la yàlla fayee da nga naan déet man ak a neexoon ma jël sama temps yëpp consacré ko ci taxawee sama askan ci li leen di njëriñ waaye léeg léegi nguur wala privilège la yàlla wax ci sotul àllaaxira rek moom la ñuy baamuwaat kalla inna al insana la yatgha an ra'ahu staghna waaw yàlla ne li fi nekk kañ doomu aadama moom dadi kuy gaaw a gis boppam yàlla ñu yàlla jéggal dane sax doomu aadama moom dafa gaaw a fuy ñu ngi jéggalu ci baat bi waaye alquran waaw bur yàlla ne kallaa li fi nekk mooy inna li insaana la yatghaa doomu aadama da di jëmm joo xamante ni dafa gaaw gis boppam dafa gaaw a naagu dafa gaaw a bew kañ jikko bi kañ lay installé ci doomu aadama bur yàlla ne an ra'ahu staghna an ra'ahu staghna ah gisuloo keroog an raahu staghna bu ma ko mayee koom-koom bu ma ko mayee privilège bu ma ko joxee sens bi nga xamante ne xañ naa ko ñu bëri ma ne ko bàcc ci kanamam léegi léegi boo moytuwul sama gaay ña ma xam ñooy ñëw dar la seeni bagage yooyu ñu naan la liggéeyu ndey ñu naan la xawma bootu bootu mbootu ñaq mbootaay ñu di la wax slogan boo xamante ne ñoom ñoo lay diigal ñoo lay suruxal ci li nga xamante ne danga ci war a tiit danga nga war a dugg sa ruux mais man ana lan laa médité bañ ma jox lii ana lan laa médité ba ma am poste bii du man kese fi nekk ki jàng du man kese fi nekk ki xam yow nga war a xalaat loolu gaa yi ñëw dar la seeni bagage yooyu noonu di la ne sa li sa ndeya ko liggéey sa këru baay ñàq mbootaay la ñu di la wax slogan boo xamante ne boo demee wéet lu tax avant ngay mel noonu gaa yooyu ñëwuñu dar la wax la loolu ba ñu xaar ba bés ni ki tey ah tey ngay am la nga am wala tey ngay doon la nga doon walla tey ngay nekk fa nga nekk moo tax nga dégg baat yu bees yooyu moo ne <laughs> ñoom bu ñu xamul yow mi ñu koy wax yow war ngaa xam ndax yow war ngaa xam ne lu jiitu tey kenn daawuma wax li lu jiitu tey daawuma dégg li lu jiitu tey daawuma gis ñi lu tax tey ma am lii rekk ñu daldi fugg sama bunt sa ndeya ko liggéey sa këru baay xam nañ lii jomb la mbootu ñàq xaw ma ñàq mbootu la xaw ma comme ni ko gay waxee bootaayu ñàkk la waaw ko defee ñu du la wax slogan boo xamante ni boo àndul sa xel danga naan saraax ci pièce bi nga xamante ne wallahi yow nga war a tiit ñaan yàlla mu yombalal la yeen boobu la ñuy wax noonu sa ndey ko liggéey sa këru baay ak mbootaayu ñàq la ñoom seen. bés buñ la jëlee foofu walla bés bu affaire bi wëlbatikoo ba nekkatoo ci poste boobu càng leen di gëj gis càng leen di gëj gis càng leen di gëj a dégg da suñu imam di wax rek imaam Ibrahima fay nee na ca suratu Shuara bur yàlla ne ñoom daal ci xur bu nekk lañuy tàbbi hmm. mu ngi noonu mu nekk mbir boo xamante ne dafa war a jara bàyyi xel bu baax a baax a baax baax waaw pièces yooyu kenn ku nekk war na ka war a mën a bàyyi xel ñu sàmm ko ñu wattu ko bu baax a baax a baax a baax ndax ku ko wattuwut rekk gars yi mun nañoo ñëw sërxal la tendre la pièce boo xamante ne boo ci duggee pour nga génn ci loolu mooy doon lu jafe ndax bu ñu demee xool ci suratu Shuara dinañ fa gis buur yàlla tabaraka wa taala ci njeexantalu saar bi ñu mel noonu ñu nekk suñu biir askan bur yàlla tagg na leen naam waaye léeg-léeg tamit am na la nekk ci ñoom ay melokaan yoo xamante ne suñu boroom subhaanahu wa mu ñu koy moytandikuloo ne ñu xanaa gisuleen ñoom kat ci bépp xur wi nga xamante ne bépp diiwaan boo mën a xalaat dañ fanaan saraax dañuy wàcc ci diiwaan boobu ngir seen intérêt moo tax ci njeexantaru saar bi nga dégg buur yàlla ne baada audu billahi min alsheytaani irrajim tara annahum fi kul waadin yaxiinuun wa annahum yaquuluuna maa laa illa alladina aamanuu wa amilu saalihaat wa dakaru llaha kathiran mu tegsi ne wantasiru min baadi ma dalamuu wa sa yaclamuuna alladina dalamuu ayim qalabun yanqalibuun sadaqallahu alazim ca suratu shuara bur yàlla ne yonent bi ne xanaa gisuloo ñamala bëgg a wax ni waaye yowit yow député ba ñu fal walla yow ba ñu yow jëmm ba ñu jox post bi nga xamante ne du ñàkk mu am ñi ñëw ñu di la wax ne sa yaayaa ko liggéey sa këru baay mbootaayu ñàkk lak liy jomb lak ñu di la wax slogan yu ni mel bur yàlla ne leen ah na ngeen def attention na ngeen taxaw na ngeen moytandiku de xanaa gisu ñoom daal alam tara xanaa gisuloo annahum naka ñoom fii kulli waadin ci bépp géew boo xamante ne yaxiinuun dañ fanaan mbàcc bokk na ci seen melokaan bi léegi wa annahum naka ñoom yaquluuna dañuy faral di wax la nga xamante ne maa laa yafaaluun duñu lu ñuy jëf du lu ñu peeg du lu ñu xam waaye fii lañuy ñëw di la wax wax yoo xamante ne boo defut attention boo jiitalul sa xel ñu dugal la ci tuuxidu na boo xamante ne doo xam foo koy nettale moo ne lu jiitu bés boobu ngay am loolu nga nekkee gisoo kenn kenn waxu la lii tey ngay mel melokaan bi moo tax nga di dégg loolu kon boo àndeek sa sago dangay xam na ngay jëflanteek ñoom waxuñu bu kenn may kenn waxuñu bu kenn dimbalee kenn waaye nag la nga moom maye ci dimbali ci waaye lañ la dénk mu doon moomeelu askan bi nang ci tey waaw loolu ku la ci mere nag doo ci am benn bàkkaar ku la ci wax baatu gannaaw tamit mooy fagul boppam ay bàkkaar waaw ndax la nga moomul dañ la ko sàmmloo la Yuusuf wax rek waaw ki mën na sàmm la ngeen ma jox la waaye ki ko xam la la nga moom maye ko la nekk si sa moomeel joxe ko maye ko loolu sa sañ-sañ la waaye liñ la dénk loolu danga koy sàmm la nga moom ak liñ la dénk boo ko ràññeewul dangay ngay jël lépp di maye waaye liñ la dénk bu dee da kaa sàmm def nga li li war la nga moom bu dee danga koy maye def nga li war la nga moom ak lañ la dénk bu dee dangaa boole lépp di ko sàmm ba léegi def nga li nga war waaye li la dénk ak li nga moom bu dee danga boole di ko maye defoo li la war waaw defoo li la war moo tax yàlla ne ñu mel noonu nag alam tara gisuloo bokk na seeni jikko fii kulli waadin bépp xur wala bépp géew ba ñu defee ne fii daal bu ñu fi wàccee dinañ fi for dara wala dinañ fi am dara yex yi noon dañuy raasaatu béréb boobu dañuy nangoo teewee béréb boobee waaw moo ne bokk na seen njikko bi léegi ñoom ñi yàlla di joxoñ yonent bi ñu ñu di ko joxoñal suñu député ya war a dem assemblée wala ñi ñu war a fal bur yàlla ne wa annahum bokk na si ñoom yaquluuna dañuy wax maa laa yafaluun luñ dul jëf ne ah bokk na ci ñoom ñoo xamante ne daal ñoom dañoo lamboo gëm yàlla boole si jëf ju baax moo tax yàlla ne illa alladina amanu lu dut ñu gëm yàlla ci ñoom wa amilu saalihaat ñu di jëf-jëf ju baax gannaaw gëm yàlla ba ñu gëm yàlla ñu toftal si gëm yàlla bi jëf ju baax yàlla ne wa dakarullaha kathiran ñuy fàttaliku yàlla nu mu gën a bare ñuy tudd yàlla nu mu gën a bare yàlla daal di tagg ñooñu ci anam bi nga xamante ne moom la aaya bi jeexee moo tax buur yàlla ne ci suratul alaq doomu aadama bi kat da jëmm joo xamante ne mooy ki nga xamante ne dafa gaaw a gis boppam kañ lay gis boppam kañ lay fuy kañ lay beew mooy an raahu staghna bu gisee ne yàlla beral na ko loxo ci koom-koom ci ay privilège wala ci ay nombre tànk yàlla ne kooku kat dafa war a xam ne inna ila rabbika rujaa xanaa xamul ne ci boromam falay dellu xanaa doomu aadama boobu gaaw a gis boppam xamul ne ca yàlla mooy dellu kaayam du dellu fenn du dellu ci kenn fa yàlla suñu borom tabaraka wa lay dellu kañ keroog bu mu jeexalee dundu àddina yàlla daal di joxe melokaan yoo xamante ne mooy critère doomu aadama boobu mu ne xanaa doomu aadama bi xamut ne ci boromam lay dellu subhaanahu wa taala ba tax na kenn ci boroom xam diini islaam ci ña toppoon ci jamonoy saxaaba yi kenn ci ñoom mooy omar bun abdul aziz rahimahullahu rahmatan waasiah daanoon na joxe conseil de ministre ay baat yi nga xamante ne bi léegi mu bokk ci yóbbal ba ñu bëgg a jox suñu député yi ñu war a teewal assemblée nationale mu doon yobbal bu nga xamante ne tey jii ñun moom la ñu soxla ci béréb boobee moo tax mu ne kaana xalifatun aadil umar bin abdul asis yaquul li julasaaihi man araada an yusaahibna fal yusaahibna bi xamsin nee na kenn ci kilifa diine di xalifa bu jub te mandu di Omar bin Abdul Aziz rahimahullah nee na daanoon na wax ci conseil des ministres ba muy organiser ci palem daanoon na wax gaayam mi walla ministre yi ne leen man araada an yu saaxibana képp ku bëgg dugg suñu système ba ñu bëgg a tëral fal yu saaxibna bi xamsin nañu gardel juróomi mbir ya ñu bëgg waxtaane nii Omar bin Abdul Aziz ñu ne conseil des ministres ba muy faral di organiser ci palais bi daanoon na wax ne képp ku bëgg dugg ci suñu système bi nanga nga gànnaayoo ba ñu bëgg wax ni mooy juróomi melokaan yi waaye juróomi melokaan yi ñun ñaar lañu bëgg jox suñu député yi ngir ñu gànnaayoo ko àndandoor ak diplôme yooyu ci assamble nationale mooy ci pincum ndaw réew bu ci jiitu mooy wa yakunu awnan lana alal xaq nanga nga bokk ci ñi nga xamante ne boo ñuy xetali di ñu dimbali dina jàppale na doon ci dëgg maanaam nag ñu dimbali ci dëgg diplôme bu ñaareel bi mooy wa yu addil amaanata ilayna wa ila nnaas na nga doon ki nga xamante ne ndénkaane buñ la jox nanga ñu ko delloo waaye ndénkaane buñ la jox ngir nga jox ko nit ñi nañ ci jot ñetteel bi mooy wala yaqtabba indana ahadun bu ñu kenn nekk fi di ñu wor wala nga di ñu tegal ay ndëgë sërëxël wala nga di tàndar ay pièces yi nga xamante ne buñ ci daanoo suñu gouvernement bi mën na suux wala assemblée bi mën na suux bu ñu kenn tàndar pièces yi ni ñetti yooyu kat Omar bin Abdul Aziz rahimahullah daanoon na wax lii ci conseil des ministres bam mu daan organiser ci képp ku ñu bëgg jàppale képp ku bëgg àndandoor ak ñun ci suñu système na nga gànnaayoo juróom mbir ya ñu bëgg a wax ni moo tax mu ne man araada an yu yusaahibana képp ku ñu bëgg jàppale ci suñu système bi képp ku ñu bëgg jàppale ci suñu doxalin bi ak suñu tërërinu gouvernement bi fal yu saaxib naa bi si nanga gànnaayoo juróomi mbir ba ñu bëgg a wax nii waaye ñun nag dañ ciy tànn ñett rekk jox ko suñu député yi ngir ñu àndandoor ak loolu ci pincum ndaw réew mi ngir ñu taxawee taxawaay bi ni mel ngir askan bi soxla nañ loole bu ci jiitu mooy wa yakunu awnan lana alal xaq nañu bokk di dimbali waa assemblée ak waa gouvernement bi lépp li nga xamante ne da dëgg nañ leen dimbali ci dëgg ñu jàppale leen ci dëgg mooy jub jubal jubanti bi ñu tëral nii ñaareel bi wa yu addil amaanata ilayna wa ila nnaas bu dee ndénkaane buñ la jox la nag ñu delloo la mel ni lañ la dënk service lañ la jox la tax ñu jox la ko ak la tax ñu war la kaa jox na nga remplir condition boobu waaye la tax nga war a jox liñ la jox ngir mu dem ci askan bi naa ci askan bi jot bi mu mat sëkk waaw loolu di ñaareel bi ñetteel bi mooy wala yàq tabba indana ahad bu fi kenn nekk nag di ñu tendre ay pièces ak ay ndigg sërëxal nga xamante ne buñ ci duggee rek dañuy am fayit boo gisee lu baax waxal boo gisee contre lu baax waxal su ko defee ñu effacer ko mu daldi di ne wa man lam yafalu fa huwa fi xaariju min saaxibatina ki defut lii nag kooku la ñuy sepp ci suñuy àndandoor yi ci suñu ali kon lii da di slogan boo xamante ne Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala rahmatan wasia da ko doon waxtaane conseil des ministres ba muy organise ci palais bi su ko defee ñëpp nekk ci règle ñëpp nekk ci jub jubal jubbanti bi nga xamante ni mooy slogan suñu ñi fi nekk nii mbokk yi ngi ñaan yàlla suñu borom yal nañu yàlla boole may dégg ak topp waxtaan bi jeexul dañoo yegg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi saa ilina mawla jalla wa ala an yajalana min allazina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana